bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala man usriya rahmatan lil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa mawlana muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi yëkkati sunu kàddu di ko tàmbalee ci ab nuyoo bu ñu jëmale ci Cheikh Mouhamadul Muntaqa alxalifa al aam lil muridin di ci di ko def nag ki digalul cheikh abul baraka mi nga xam ne mooy cheikh mohamadul fadil muy ndigal loo xam ne dafa bàyyi ko sëriñ bi jaar ci cheikh mohamadul bachir mi mi jëwriñ ji ak cheikh mohamadul muntaqa waaye ñëw ci cheikh abdul fatah mi nga xam ne mooy yor liggéeyu màggal gi yor kàddu gi itam kër cheikh mohamadul fadil di jëwriñ ji Cheikh Mahamadul Bachir ak Cheikh Abul Baraka ci liggéey bi ñu du ko yëkkati nag ci teewaayu sunu kilifa di Cheikh Mahamadou Xabaan moom Cheikh Mahamadul Fadil ñëw teewal fi sëriñ bi di sunu kilifa ci jataay bi ñu teewee ci jataay boo xam ne nag dafa am solo muy bis boo xam ne borom bi subhaanahu wa moo ko tuddal boppam moo ko màggal moo ko teddal moo ko teral di bis bu xewoon ci weer boo xam ne dafa bokk ci al ashhurul xurum bokk ci weer yi nga xam ne dañ koy warmaan di weer yépp a tedd waaye dafa bokk ci weer yi nga xam ne ñoo gën a tedd am it xew-xew yu baree baree bari yu ci am waaye am ci boo xam ne nag moo tax ñuy daje tey muy bis boo xam ne ci la borom bi subhanahu wa taala terale woon soppeem ba sallallahu alayhi wa sallam taraanga joo xam ne mësu koo defal benn yonent mësu koo defal kenn koo xam ne borom bi subhaanahu wa bind na ko muy rañaane ko moom sallallahu alayhi wa jële ko masjidil haram yóbbu ko masjidul aqsa alladi baarak naa xawla lu taxoon lu niru yahu min ayatina innahu huwa samiul basir muy bis boo xam ne alquranul karim moo ko tudd wax ne yàlla moo ci jël soppeem ba sallallahu alayhi wa sallam rañaane ko yóbbu ko jële ko masjidul xaraam yóbbu ko masjidul aqsa teral ko fa mu fekk fa ay yonent yoo xam ne kenn ku ci nekk sa wàccuwaay ak sa daraja ci borom bi subhaanahu wa taala doy na sëkk daraja waaye mu ñëw nag indi ko ci seen kanam teralaat ko ci seen kanam sàngalaat ko ci seen kanam yemu ca waaye mu yéegale ko yéege ko nag al miraaj loo xam ne borom bi mosu koo defal kenn mooy yéege ko ca kawam ca ca ca ca péeyam yu kawe ya ba mu yegg ca foo xam ne kenn mosu fay yegg te loolu lépp alquran la ki nga xam ne nag moo ko doon yónni muy jibril alayhi salaam dafa dem ba fa maqaamam yem mu ne ko man fii laa mën a yem bu ma ko rombee damay seey ci leeri borom bi subhanahu wa taala waaye borom bi nga xam ne ala kulli shay'in qadir moo man lu ne moo wut bindeef moo xam ne moo jëlaat sallallahu alayhi wa sallam wala lu ko nu mu ko soob daal moo ko na jëlee ba yóbbu ko foo xam ne kenn mosu faa yegg keroog sallallahu alayhi wa sallam jege na borom bi subhanahu wa taala loo xam ne kenn mësu koo jege noonu loolu leen alquran la ko wax fa kaana qaaba di aw adnaa bon muy foo xam ne kenn mësta jege noonu borom bi subhanahu wa taala sallallahu alayhi wa sallam jege na ko noonu mu jox ko fa loo xam ne itam mësu koo jox kenn loo xam ne kenn du ko xam waaye am na ci lu xam nag mooy julli juróom fa awxaa ila abdihi ma awxaa mu doon euh, kon xew-xew boo xam ne dafa màgg ci lislaam jullit yëpp bokk jullit yëpp itam àndandoo di ko màggal ci réew yi jullit yëpp waaye nag ni ñu koy defee fii ci Sénégal mu doon loo xam ne xëy na ñun dañ cee gën a ràññiku di bis boo xam ne itam Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu da ko fakkoon bind ci ay téere yoo xam ne ci weeru rajab la ko bind ay xasaayit yu bari yoo xam ne daf koo tënke sax yow mu rajabin am xasida goo xam ne itam dañ koy jàng waxtu wu ne muy mafatixul bishri goo xam ne ci weer wii la ko sëriñ bi bind am ci ay bayit yoo xam ne daf ko dugal ci biir boo bokkut ak ni mu doon woye xasida bi bis bi nga xamee ne xew-xew bu mag bii xew na muy Cheikh Mouhamadul